ginnaaw bu mu bañee na du sol mayo bi nga xamante ni dafa am drapeau bu arc en loolee di mandargal bu góor jigéen ñi international sénégalais bi di Gana Gueye woy di dund ay saraaki xoqatal ci xarale yu yees yi mu nekk ab mbir boo xamante ni itteel na lool acteur yu nekk ci société civile bi. on est on a des valeurs Gana Gueye il est musulman taalibe Serigne Touba la jullit la donc kon moom loolu mu def image yu Sénégal la léegi est gis li mu def nii man damay ni dafa def flash mob dafa sigil Sénégal. luñ ko yàqul. li ci gën a metti bu doon dafa yem sax ci euh, euh, clameur populaire bi comme ni ñu koy waxee ñu mën a bàyyi mu jàll waaye autorité officielle yi nga xam ne ñu ngi séentu woon ci ñoom ñu tëddee njaaxaanaay ñu daal di jóg di jàng ak di par ak di def par bu moytuwulee nag këlëbam dina ekkati ay daan teg ko ci ndoddam loolee nag du ci wet benn yoon ndaxte am na jàppandal bu nitu dëgg valeur naka noonu itam ak ONG Jamra. La France a ko boycotté mais ñun aussi dañu leen di ñoom. bu ñu mettre en exécution leur menace ñun ce que nous proposons à l'État du Sénégal nañu appliquer la réciprocité yaa ngi bëgg ubbi que ñii ko bëgg a sanctionné muy nasaraan yi am nañ fi des contrats. ab ndaje ñu fas yéene ko amal ajuma bi ñu dëdmal ci bépp juma bu nekk ci biir Sénégal ngir amal ay ñaan jagleel ko Idrissa Gana Gueye. incha allah imaam Massamba Diop président exécutif Jamra jàkk jële muy jiite ci cité Gazelle képp ku ko sa jot may nga ñëw fa ñu waxtaan fa ba noppi tamit am fa jataayu zikru la waaw ndax suñu borom nee na. ñaan mooy gànnaayu jullit ñu ñaan suñu borom mu suturaal mu jàppale ak protéger suñu compatriote boobu di Idrissa Gana Gueye fukki fan aka juróom-ñaar ci weeru mais di bëccëg bu àdduna wërngal këpp di màggal xeexum ngóor jigéen mu nekk ab ndollu ci ànd sàmm jikko yi ngir gën a fësalaat seen taxawaay ci xeex bi nga xamante nii ñu ngi koy amal